salaamaaleykum. jarbaas bi tey yow yaa dugg ci waañ bi de. waaye jaay yow tey loo guddeewee nii. waaye gis nga nekk ci affaire yi rek bëgg ah. bu ma bëgg bu ma kar yi rek bala tabaski bi fekk fekk mu jeex. yaa ngi togg reer tey. tey ganaar laa togg. kanaa aw ma fi añ tey. xoolal bàyyi ma waxi añ tey suppu kànja laa toggoon añ waaye ganaar laa togg ak frit ak salaat ak lépp. woo nga naar ci guukum soow eh. su reer bi bàyyi ko nelli rek ñu jàll ci suma añ bi mbaar bool bi mi ngi baax foofu boo añee doo reer ma ne ndax mi ngi baax wàll ah yow loolu suma gayndeel la laa ilaha illallah rendez-vous am mbaar rek diwtiir bi dox ba tumba ci kaw eh. nga dooral ma ci jàkkote bu toll comme suma bopp bi waa ndànk rek mi dara suppu kanja bi am na karaw suppu na gambaas kon fumier na kon fumier na bi jógee Gambie nag laa ci def. waa bijiloo ñëw la ko jaay kana. ñoo ma doo mën a reer. ne gis nga ci taabal ama aché bi seelay toog nga indil mu sum supp kànja bi ma ma mat lekk. waa ganaar gi nag am na si paak. lépp ci dara manqué wu. sa ginaar yi kees fali. Ah. bu ma waaki waaki ginaar indil mu sum supp kànja bi. kon yow daal suppu kànja nga bugguma benn Deng, eh, benn affaire dégg nga indil ma café hmm. yow rendez-vous am mbaa bi am ci main eh, kànja dafa am ci kon ma sa suppu kànja sama nijaay de tey sama ganar gi waxu ci dara suppu kànja bee la wax leneen lu dul suppu kànja bi daal waxu ko instant yi xaaral ma ñëw jox ko mu maam Waaleykum salaam. ça va. ça de du Abdoul la. Abdoul eh, noo sant yow. ba yow it sant ba. kono ba néeg bi salte de. oui c'est normal nag eh, suba lañ fi génnoon ba heure bii kaay. kenn yendu wul fi daa yendu tëju. waaw mu déborde as. ay néeg bi muy mel ni comme néegu kaj kana bi yaawul yow war nga kool magum jëmm bu toll ni man ngay wax ay ndax kaj may fanaan fii te doo defar sa kàddu yi dafa saliñoo dafa saliñoo dara fii dalla fii caaye nule yow nag da nga bugga di teg ay artigal nag déedéet boo nekk ñaari nit suñu nekkee si néeg hmm. ki njëkkuloo wàcc hmm. wala ku toogloo xëyuloo hmm. yow defaral yaa ñu kuloo wàcc defaral rek keneen bu wàccee beneen yoon mu defar bu dee affaire kay bi moom ñoo kayandoo bu dee jiitu bi it maanaam yow simila ak saala la rek rawe bo ma la dar altina ak talaata la rek di waaye bi nga yegsee da ngaa teddi dafa bari ay affaire quoi koy duggal nga lijjante sa bopp rek nga ñëw eh! dégg kan moo yàq kii bi nii. yàq la duus bi. doo ko laaj duus bi. min bi mu ñëwee ba tey fii laa tëdd nga naan ma kan moo def li duus bi. ku saw fii de ak fi duus yi bokkul ak duus àll yi. boo tuuree dugub. wala nga tuur ndox. Ah. nga bës am na bouton. bouton bu nekk ci kaw. Ah. nga bës ko boo ko bësee ndox bi day def ko. day monk ko mu ko monkee day xëcce yooyu yëpp yóbbu ko ci force bi waaye doo bàyyi noonu gisoo dégagement bi ay bu ma kamul kay dag may wax rek ndax man kam nga ne duusi man ginuma ko miin noonu loolu kam amul benn problème ndax man fi ma jóge xur ba xur àll ba àll foofu la duus bi tàmbale ñun suñ duus am na commencement waaye amul fee amul ay bouton amul dara kon da ngay yam si àll ba foofu. dama yam ci àll bi ndax frontière amatul ci aduna bi léegi nit yi dañuy dogalante il faut nga comprendre lool ku kamul nak dang kay wax rek wax ma rek pour bonen yo benen yoon del boss boss ko rek dafa bari problème o ndion melna mel na ajjukaayu màngataan di wax ay affaire xoolal lii rek elle fas buy saw góolu loolu gaala laanu xamul lii daan dégg nga ka wala dégguloo ko dégg naa ko kay gili loolu gaala laanu bi muy def mi ngi mel ni fas buy saw kay sama saw wala bés bi gulu loolu bi mu def laa wax elle fas mooy saw foofu loolu kay kana du yow yaa ko saw ka am nañu yàlla a yéen nag jàmm. Eh, nekk nii. noo def. mbaar ah, nelaw nga bu baax. nelaw naa. alhamdulilah maa ndekki nga. waaye ndekki naa bu suur ndekki baa bu suur wallaay ndekki hmm. def kay yàlla def teraanga rek. amiin des yàlla na ci yàlla def barke. amiin amiin waaw bi xormati rasulillahi sallallahu alayhi wa nga ne gi neex na torop. Eh, gan si sa rek. amiin fii sa kër nit kat eh, dina ñëw ci moom te du ko jox li moom. <laughs> Eh, cër kat koo ko jox mu yëg. waaw yaa ko moom yaa ko moom waaye su sa yi garaaw nan de. nan yan. Ah? man bati bi laa kamoon bati bi. mooy bi ñuy def ci kopp rek bindeel ko noonu boobu laa kamoon. Ah, sar la pala. sur ah, la pala. waaw sur. ay eh, wopp doon ka bàyyi foofu waaw. nijaay yow. lu garaaw. sa neex yi yàgg na. jarbaat. jarbaat nag li nga combiner garaaw na de la yow sa li nga def ci sa loxo yi ak tànk yi def ndiro waaw jox lenn de dinaa la ko kamal lii moom jëlee woo ci sa yaay moom. kaw la ko ah! jëlee. Aliou yaa la ci kanam ak ci ginnaaw <laughs> de. wallaay baax na de. da ngaa doy waar moom yàlla na kaalis bi réer saa yoo ko gisaatee mu réeraat. <laughs> noir noir bi ah. ci jàmm rek. waa kay nijaay. nekkal si jàmm lu bare bare. Eh, eh, yow eh, naar. naar di wax na fekk géej ñi. yow Jerba. waa nijaay la ko laaj. mi ngi kasaan suma kol bi boobu ba léegi. loola la fi la. yow seen réservoir bi ngeen defar ni kana di ngeen yaakaar ni indi lu ma leen kar bu ngeen war tabaski te loolu kam nga ne suma ngor mayu ma ko mukk lu ngeen tek suma lokk di ngeen tabaski waa li lii ngeen eh, ni jaay yow xar bi ñu indil ak li ñi roosa lu leen boole te ma kam ne kat li ngeen defal ay yow ni ngeen dugal ci ñak bi ba mu baax ni mu toy seen kar yi xam naa bu toy lañ bugg moo tax ngeen def li kon bu leen nubu kar yi génne leen kar yi nijaay boo bëggee dee ju dëgg mbote sax mbote bu doog a sax amuñu ko waaw ah, léegi lii ngeen defar bassin de rétention nii lii pour lan la nag nijaay bu ma rey lii du de rétention dañ ko def ni kër gi xana gisoo fleur yi dañ koy rosé sa ñu xëyee ah, li kay kana du ngeen ko ras ni rek jëmali fu kenn kamul kanam ah, am ñu leen fi waji yeew dañ koy rosé bu démé ba mag ah. gardien bi ñëw wat ko ba mu da daggaat ka encore ko li ngeen def ni yeb da ngeen di yàqal ak nawe bu nangu bi ngeen ya ay nijaay naaj na démal légui kuy bima leen di jox pour tabas mm. dina ko téel indi mu lekkal leen li ah dina ko lek na dina am lu mu lek lu dina ko lek na sama nijaay am lek Dakar kam. na nga teel a ñëw nag tey si añ ji. waaw incha allah. Mhm. ñu yem ba ci jàmm. waa kay. nuyu ma sama nijaay rek moo dàq suba la taw lu ko neex lay wax loolu. salaamaaleykum. maaleykum salaam. Yaasin. naam. gogo ya, jam waay yawr ben. sawa jam ta alhamdulillah na ngeen def ak coon hmm. naka suba si sawa alhamdulillah ana kaw ji bi kaaw ji bi xeyna wah? Jam na xëy na la ak salam wa xam nga man dama am lu metti buguma si wax ndax suma si ñu wax dama dama soxor dama bagn bokkuloo man man du mun mun dund si lool. seen man damaa tàng. seen nijaay laa wax. waaw sama nijaay lu ci waaw guddi bi. waaw dafa am feebar. ah biir bi. mu ndax seetlu ngeen ko wala seetlu lu leen ko si moom. xam nga yow da nga yabaate. Hmm? biir bi dafay am ngelaw. ngelaw bi guddi lay génn ci biir bi su mu nelawee ci la ngelaw bi di génn ci moom di di ma di ma di ma keeñ damay def parfois ay deux heures trois heures damay yeew def parfois néeg bi piis piis piis ci kanam toogaat ngelaw génnaat yow may ma jàmm may ma jàmm ma def ah. yow li ngay wax bari na torop kañ ngay noppi kañ ngay noppi laa bëgg a xam. am nga su ma waxee ngeen naan ma sa nijaay yow tam tamit kay parce que amoo yar kenn yaru la. sama nijaay bi dafa am balu ne man. sa affaire la man lijjantoo ma loolu. man sa nijaay moo am balu ne. yow mii la sa nijaay am balu ne xanaa yow lu tax nga réew loolu feebar la ma lay wax feebar bi sa nijaay am man maa fanaan ak moom. wala yow nga essayé. yow nga essayé nga fanaan ak sa ndijaay nga xool ba xam. waaye yow man ci yàlla de. waaye kaña moo dee si néeg bi si ballonnement biiram bi. sa nijaay dala fee waaye dina la yóbbu fee ñuy fajee ñu wérul ñi dalal xel même bu dee ñaari fan di ko fa am. man yow. man ngi yóbbu si. ndax yow sa yaram wi safa suukar. saabu mu safu ma suukar. mu ko mustaam. safu ma suukar. yow may ma jàmm dafa teel voilà. am nga lii moo tax bu ma bëggoon laaj sama nijaay ji bi ma wax ko bala ne bi sa nijaay am parce que xam naa su ma la ko waxee waaw baax na su ma waxee ngeen jàppee ma boccoonde ci kër gi di wax man boccoonde laa di ma di ma jiiñ boccoonde di wax man sama bopp bi amul ndox boccoonde bi da koo jël bokkoo ko kenn waaw yow bi biiram bi ngelaw lay fanaan ngelaw tes tes tes sa yeel yu gudd lakkale bay bëgg a boo ma si xasee du ma doon si dara sama wax dara. <laughs> wooy lakkale bay bëgg